motax bëgguñ suma woy ndax la gis neen ño xam ñoo xam ne ñu ci musique bi ak lan lan mo lañ ci def fekk ak yu noonu mhm. ñu ngi bañ suma jaar ci yoon bobu non loolu mo doon suma metti metti ko xam ne nii mhm. maa ngi ko ci doon antu mhm. waaw ah di ma nag ci guddi dafa am ku ma doon waxtanal ci yoon bi ñi ngi doxantu mu ne mo ne Pa Omar ku ñeme kele la mo ne ko waaw ku ñeme lan la kele waaw <laughs> ah non naa ko ba ñemee ma ko ndax tamit nekkoon na loo xam ne nii ok maa ngi ko doon def waaye nekkul loo xam ne nii moom laa bëgg a def. Mhm. waaye mënoon nga ko tamit. waaw non maa ngi doon try ndax. Mhm. ndax fii i booy. Mhm. kenn du mun dara. lépp lépp yàlla su ma la jàppale rek. ngay ngay jéem su ko mun su su dee mokkal. su gisuma ko. te ku ne it mokkal na it. da wax rek lu la neex. mooy dëgg waaw. Hmm? kon fu mu nekk su ma su ma la joxoon moto di nga ko mën a kele ba mu très bien. fàtte naa. <laughs> fàtte naa ndax xam nga li tax <laughs> teel a fàtte sax. non fàtte naa xam nga lu tax. Hmm. ay at yu bari. Hmm. concentré tu ma si loolu noonu. waaw si musique bi la concentré. gis na del mag bi moo ko ëpp a doole. non mag bi moom moom moom moom ëpp na ko doole lool sax. ah waaw waaw waaw waaw. <laughs> waa euh, mbokk yi ñu leen a fàttali rek ne. Pa Omar lañ am si biir studio bi. Mhm. tey suñ star bi Pa Omar Jack la am sure ne am ngeen lu bari loo leen bëgg a xam ci Pa Omar Jack ngeen call rek mu wax a Pa Omar. Mhm. tey moo nekk si biir studio bi waaye nag balaa ngeen a call man am naa yu bari yu ma ko mën a laaj. Mhm. xam nga naa njëkk a bëgg a xam sax Pa Omar am na benn woot boo xam ne ñun ñëpp la. koo xam ne woot boo xam ne. is ida mun loo koo spell mbaa mun loo koo wax. Sawar ban moy sa boss luma mu tass pel nak mom amul mom lul mom lo mu tass pel amul. kon lo mu mënta wax. no pa pa pa no pa pa sa wax ne mun lo wax S. eh pa pas ma amee benn wóor pas eh pas. wax es S kon waxal ban wóor nga mënta wax. pa moom mooy am benn wóor do ko mu lo wax. mooy lan mooy. bu ma wax interpropre ba ca cab baliti de bu fi wax yoyu ah. naka interpropre ba cab. déedéet déedéet iskana boodu baraxalim. is naka. ma wax rek da ko wax. ma wax rek. iskana boodu baraxalim iskana budu bata kalim ki waykat la ki artiste la wax nako de okay a tiare way balaa ñu jël suñu leen collé rek dama bëgg ñu dem ak break bu ndaw suñu delu sé rek waxtan bi gëna a continuer Lo de fenu bay man Knuckling my chéri xam nga ne na ma naa say ma féete bilay sama xel day dem ci yow lay ku digi xaaji damay wéet man te mujj feebar ma am li may sentir ci sama bopp

joxotaan may tànn daay joxotaan neex yooyee yaa ma ko daamal digal lekk boo tukkee kala bul yaay ñëwal bëgg naa la bëgg nga ma boo ma soree na ma tey bul ma sori tuxu tax ma ma jox ko daal may tàqataay ma ndax pa Omar jaga may coxataan lo bi may coxataan ba legi dama coxataan def maa neex de ma coxataan ah, hmm? rek ma lay reetaan. nee na wula coxataan yéen yéen ite coxataan ma. coxataan ma waay. waaw waaw waaw Thierry loolu loof leen la trop coxataan. macha ambiance bi nek ci wuy bi rek ma neex. rek doyna way pa bala ñuy dem dama bëgg bala muy jeex nonu dafa hmm. am duma gis nga. lim def ci kanam yi seet. xanaa la la def. hmm xana la la def noonu. nga soo jógoon def ko